waaye moom yan dana ismu zahir yi sax moo leen gën a gudd waaye nag inaat gi nga xam ne baatu iya bi nga xam ne inaat wóorukaay la te du tàqalikoog moom la rekk ko guddal waaye damir moom maa bokk lil ixtisaar gis naa waaja mu ni ma seetul mu jooju damir la ci wolof su fekkoon da nga ni gis naa Zayd Zayd ni na di waxee noonu toujours day gudd kon nag te it balaa gàtt nag jokku de nga di fëccee gudd ba mën a gën a gudd sax yenn lismi waahir yi ni ci iyaaya iyaaya moog abum lu ci gën a gudd iyaaya ko gën a gudd fat ah moo tax bu mënee jokku daal kenn du ko fëccal bu fëccee man day gudd wasil أو يفصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتما maanaam boo xamee ne nag dégg nga yaari damir yu jokk yoo xam ne mansuub lañu te bu ñaareel ba du woon xabar ci cosaan bu la neexeet nga ni te feel ja ñu jokk ci moom du naasix nde bu feel ji dee naasix fokk bu ñaareel ba xabar la woon mu dëgg waaye du naasix ma ngi mel ni saala laaj na kooku du feelu naasix bi du dëgg te mën na nasab yaari damir saaltu saaltukahu moom la ni kooku bu la neexee jokk bu la neexee faccal ban moo ci gën nag dana la ni ah waxtiyaa waxti wattisaala axtaaru xayri ixtaara linfisaal ibnu malik nee na man ci sama bopp day jokk gi moom a gënal ndax cosaanu damir mawduun lil ixtisaar wala yakunu muxtasaran illa ida tasal xayri ku dul mante mooy si ba waxeeg ña ko topp nag nee ñu faccal géegéen ñu ne ah fii de ibnu malik wane na fi mazhabu boppam nag lu mu néew a def ci alfiyam bi ñetti barab dong la ko fi def fii de wane na waxi boppam ñu ne man ci sama bopp man dama tàmm noo xam ne ponkalum naxwu la kat kon ma nga taxaw fa wetu si ba wey ndax xayr yi ku dul man te mooy si boo yeeg ñu mu ànd tànn naa lexta fii yëg na ni nax yi la de xayr yi ku dul man mi na nax yi yéen ak ñetti place la ci alfiya nee ñu de bii de mooy benn ba ba ca des nee na wa aw du mudmarin ala wala wa aw du mudmarin ala dama ko xam عندي لازما مجلستي وتساءلون فيه أوكي وعود مدمر آه. على خوض وعود خافض على عطف لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل با محرف يخفضون soo ko dee ataf ci damir boo xam ne dañ ko xafat nga bëgg caa ci lisim ju ñu xafat nga bëgg caa ak xaraf nga bëgg caa ataf damir ju ñu xafat nee na fokk xaraf wa xafa doon maatoof alayhima nañ ko baamu dégg foofu nag ibnu ma mu ne xat ju ila defees na ko laaziman ndax yonoon neñu mun te ñàkk mu daal di indi mazhab boppam ne ah walaysa indi laaziman id qad ata fi nasri wan fi nazmi wan nasri saxihi musbata faqad ata dikk na fi nazmi ci way gis nañu ko ñu wax ci shahid wan nas nasri saxi wesar bu wér te mooy lu mel ni alquran ndax am nañu jàng tasaaluuna bihi wal arxaami wal arxaami fu ñu ko ataf ci damiru bihi te waxul wa bil arxaami moom la ni walaysa indi laaziman id qad ata fi nazmi wa nasri saxih kal quran ci woowu jànge chazilat arabiya gi kenn kontaru ko arabiya la bu wér ha asalnihi salnihi ni damir mutakallim bi mooy mafool bu njëkk hi gi xaayib mooy mafoolu ñaareel maanaam a darham dirhama dërëm ba salnihi laaj mag ko ñaari damiri na te te bu mujj bi du woon xabar du woon xabar ndax feel ji du naasir loolu kon ban nee na bu la neexee jokkale soo la soo soo la neexee nga ni sal nii laaj ma iyaahu moom dërëm ba faccal ko ah wa ma asbahoog lu niroog moom muy bépp feel bu nasab yaari damir te bu ñaareel ba du woon xabar ci cosaan moo niroog sal nii mu ni nag fii kuntuhul xulfun taba fii kun alxulfu wuute ba nag ci sañees ne jokkam fa dañuy jokkam dañuy faj intama askanoona ci naxu yoona yi fii lafzati kuntuhu léegi ah bu ñaareel bi xabar la woon ci cosaan nga ni tey kuntu hoo wala kuntu iyaahu du dëgg boo ne kaana zaydun qaa'iman xabaru kaana jooju léegi nag nga ni nga seet nga xa- du xabar la ko baatu kuntu hóot du dégg nga maanaam bu ñaareel bi xabar la woon waaye amil ji kaana la naasix la kooku oo am nañu tànn jokk ibnu malik moom la tànn am nañu tànn facc nga ni kuntuhu yaar yëpp dikk na ci waxu arab ama jokk gi eh, dikk na ci xadiisu dajjal ibnu sayyaat ba ñu ne mooy dajjal benn waaye ni yonent bi comme mooy dajjal teema ko rey léegi yonent xamal ko ne lu yàlla xasa tudd day sotti te yàlla tudd na ni masiix dajjal dana ñëw ci aaxirul zaman di sànq nit su fekkee ibnu sayyaat yahud boobu woon mooy masiix moo nar a nekk masiix yonent ni ko ay la in kaana i la dégg nga in yakunhu falan tusallata alayhi wa illa yakunhu fala xayra laka fi qatli su fekkee moom la doon dégg nga bu dul moom bu doon moom falan tusallata alayhi yàlla du la bàyyi nga rey ko ndax yàlla tudd na ni incha allah masiixu dajjal fokk day nekk ci mujj jamono kon nag du doo ko fi mën a rey yàlla du la bàyyi ak moom du la xiir ci nga rey ko wa illa yakunhu seetal ñaar yëpp damir ji dafa jokk faccal gaat ñëw na ci waxu arab benn bayit la in kaana iyaahu laqad xaala baadana an il ahdi wal insaanu qad yataxayaru mënoon na ni la in kaana hu dim jiitalal wa qaddiman ji wa qaddim jiitalal al axassa la gën a maarifa wu fi ittisaalin ci jokkoog ñaari damir ñaari damir yi nasabi nee na bu fekkee am na bu gën di maarifa morom ba te xam ngeen ni damiru yëpp bu mutakallim moo ci gën a maarifa wu gannaaw ga bu xi- muxaatab gannaaw ga bu xaayib suñu jokkaloo ñoom ñaari damir yooyu kon na nga seet nag ba gën a maarifa wu na jiitu waaye ba nga xam ni moo gën a suufe daraja te mooy ba gënul a maarifa kooko du mën jiitu fitti saalin ci soog jokk nga ni addiram ataytu maanaam ngay wax ak waaye ni ko ataytuka atay nga nga ni ataytu kahu addirhamu ataytu kahu jox naa la ko nga xam ni muxaatab bi te mooy kaaf gi moo gën a maarifa wu xaayib bi mooy xaddimil axassa fi ittisaal du la wa xaddiman jiitalal maa shiita bu la neex ci ñoom ñaar axas ak xayru axas loolu bu la neex fi saalin ci seen tàngu faccaloo kon moom bu la neex jiital lu dëgg su ko defee mën nga ni aataytuhu iyaaka wala aataytuka iyaahu comme jokkoowuñ mooy waqat di man jiitalal machita bu la soob ci ñoom ñaar fin fi saalin ci tangi faccaloo bu yeboo axas baa bu yeboo aataytuka iyaahu wala aataytuhu iyaaka wa fi ittihaadi rutbati ilzam faslan mu ni ilzam taxool faslan tàqaleeg ñaari damir yi fi ittihaadi rutbati ci waxtu bennoo daraja bu fekkee ni yëpp mutakallim lañu mbaa yëpp muxaatam lañu wala yëpp xaayba la kon doo lu mu yàgg-yàgg da nga leen di faccale doo mën a jokkale mukk nag moom ndax kenn du naan atay tuka ka kenn du ni ataytu hoohu dégg ci ittihaadi rutba ñu ni fàww nag mu ni ndaxam kay xad yu biixu mën na daganal lu néew xad bu àndeeg mu daari on day tegtale taqlil xaaliban xaaliban kat wa xayrul xaalib qad yaclamu allahu almucawiqiina minkum walqaailiin li ixwaanihim halumma ilayna walaa ya'tuuna alba'sa illaa qaliila qad yaclamu jooju kay xaqiiqa taxqiiq la de moo qad calima allahu ñooyam qad yaclamu allahu yàlla xam-xamam kenn sikki sàkkawu ko banaan amaana mu xam yenn jamono yi la taala allahu an zalik yàlla toujours ma ngi xam kon xad jooju tegtalewul taqlil taxqiq la tegtal naka bu nekkoon ci feelu maat ba ki qad alima allahu rek wa qad waqat yu biixu mën na daganal léeg-léeg nga xam ne bariwul nag lu muy am alxayb nekk seen di xayb nga xam ne ñaar yëpp damiru xayb la ñoo bokk daraja waaye damiru xayb la e léeg-léeg yen tàng mu daganal waslan ak jokk waaw yen tàng ya yan la mooy nag charte ba mooy na fekk nag ñaari laf sa damir ya bañ a bokk xëy na benn ba bu ñaar la woon benn ba di bu kenn wala muy benn bay bu mbooloo benn bay bu njaar wala benn bay mbooloo benn bay bu kenn dégg nga ni ki aataytu kumu aataytuhumuhu wala aataytuhumaahu ni ki tey waxu waykat ba li wajhika fi l ixsaani bastun wa bahjatun anaalahumaahu xafwu akrami walidi anaalahum li wajhika ñeel na sa kanam bastun ak tàlli wa bahjatun ak taar ñaari melo yooyu fil ihsaani ci boo dee day dimbalee di def lu rafet sa kanam day tàlli te da ngay rafet ndax sa xol a yaatu yaari sifa yooyu lu ko may sa kanam gi mu ni ana lahumaahu may na leen ko ñoom ñaari sifa yi ko kanam gi ana lahumaahu lu leen lu leen ko may xanaa xafu akrim wal topp gi nga topp way jur wu gën waa tedd sa baay dafa teddoon te nga topp ko ca nga ko doonee tagg na ko tagg baayam mu dem ci leneen wa qabla yan nafsi ma al fiili iltuzim nuunu wiqaayatin walay si qad nuzim walay tani fasha walay tii nadara wa ma la al laakis wa kun muxayaran fi lbaaqiyaati wa tiraaran xafafa minni wa anni baadu man qad salafa léegi ma ngi wax ci affaire yaawul mutakallim bu dee jokk ci fiil foofu dafa war ñu jokk ca nuun goo xam ne naxwiyoona yi ñu ngi koy aadawoo tudde nuunu wiqaaya wiqaaya mooy fekk nuun gi lan la fekk ba tax ñu di ko wax nuunu wiqaaya am na ñu ni dafa fegal fiil li muy bañ ndax fiil nanguwul kasra mukk noonam la ndax moom bokkul ci mandargay liraa ba mu bokkul ci alaamatul bokkul ci mandargam binnaa la feel kenn du ko binaal ci kasra kenn du ko liraab ci kasra kon kon kasra noonam la su ko naree laal ah nga bëgg a wax ni dóor na ma nga bëgg a wax ni dóor nga ma fokk andil nuun boo nee darabta yaaw mutakallim bi mënoo ko ci jokk te doxalee foofu nuun wala sax daraba rek da nga bëgg ni dóor na ma moom daraba nii ngay wax waaye doo wax darab yi ñu ne aha ah kon fegal na feen li mu doon bañ mooy kasra moo tax ñu tudd ko ko ñu ne waawaaw bu la neexee ni ah waaye déedéet man mii di nit ki la fegal lëntkat ndax darab dana firig lem soo noon darab bii du ma xam da nga bëgg ni door na ma damay defee ni sax daga ni sama lem ko xajar day firi xeer soo nee xajar yi damay defe da nga ni sama xeer du ma xam da ngaa jublu ni xajara tere na ma kon da foog nga ne xajara nii tere na ma dara ba nii dóor na ma soo nee xajar yi du ma damay defee ni sama xeer nga wax soo nee dara bi damay defee ni sama lem nga wax ñu ni kon déedéet nit ki la fegal lënt maanaa kon nag yaxtamiluhuma maan daal nuun gi daal nax yore ñoom tudde nañu ko nuunu wiqaaya feg na lënt kon yaar yëpp na ci dugg boog kenn walaysa ahaduhuma awlaa bi axar kon nañ ko bokk kon bon nuunu wiqaaya feg na lënt lëntoog lisim ak feel feg na itam fegal na feel it la mu doon bañ te mooy kasra ndax du mandarga liraabam du mandarga binaam kon bon ñu tudde ko nuunu wiqaaya kooku nag na nga ko saxoo qabla yan nafsi la jëkk yaaw nafs yaaw nafs ku ko mës a dégg nee ñu ibnu malik la ñu jëkk a dégg mu wax ko kat damirul mutakallim wala yaaw mutakallim la nax yu woon yi aada woo moom mu foofu ko tudde yaagoo delloo ci sa bopp sa nafsu mu daal di ko tudde yan nafs tur woowu day ibnu malik la ñu jëkk a dégg daal mu foofu ko tudd wal muraadu bihi damirul mutakallim ma al fi'li fekk mu ànd ak feel ultusima noonu wiqaaya waaw laysa nag feel la waaye moom day dégg nañu ci ñu xadafal ko noonu wiqaaya ànd ak yaaw mutakallim moom la ni walay sii baatu lay sii day xat nosima nose nañu ko ci way maanaam dégg nañu ko ci woyu arab ba mu ne adadtu qawmi ka adidi taysi id dahaba alqawmu alkiraamu lay sii nee na ba nga xamee ni gaa yu baax yëpp yu ñu daan yaakaar di leen fekk ci aajo yëpp dem nañu man ma des fi nee na booba dem sama bokk yi sama famille bi sama xeet wi ma bokk lim naa leen li ñuy lime jebaraay benn benn kenn ku ne dikkal na ma ndax damaa bokkoon ca gaa yu baax ya te ñu dem bamba fi ma wéet moo tax maa yenu coono ya adattu qawmi ka aditi tays tays mooy su bi ibrahim id dahaba alqawmu alkiraamu laysi xiyaas nag moo doon laysanii bo waaye laysi dégg nañu ko walaytanii fasha walaytii nadara layta nag xaraf la moom xam nga ko ci mbokki inna la waaye moom ba nga xamee ni yor na maanaam feel tuuti nag ndax mboolem xaraf yuy jëf dañoo yor maanaam feel moo leen ko may de nde jëf moom feel a ko jëfu nasaba ki rafa feel a ko moom xaraf su ca amee dara da koo xaaraane ci feel layta ba nga xamee ni bi maanaa atamanna kon yor na maanaam feel ah walayta nii ànd ak nuunu wiqaaya pour nuru feelam tax na layta nii ànd ak nuunu wiqaaya fasha siiw na moo gën a bare walaytii nag dong ñu xasaf nuun wiqaaya gan na dara néew na dégg nañu ko ci waxu arab nee ñun waraqatu nu nawfal nee ñu moo ko waxoon bayt woowu ñu déggee layti ba muy tontu xadija ba mu ko naan isma min ibni axiika na nga déglu ci sa doomu mbokk bi kat li mu wax ndax nee na dafa dem ca kàmb ga nekk fa ba yàgg am lu ko fa fekk naj ko nangama nangam mooy ci njëlbéenu wax yu ca tiit gamu ca tiitoon mu di ko wax ko xadiya mu ne ko daal yàlla buy yëfi rab nan dem ci sama camiñ da waraqatu ibnu nawfal ibnu ammi xadija moom mu laaj ko ba xam ndax xamkat bu ñu daan fekki la mu daal di ni giñ ni kooku ba mu ko ko nettalee ni ko ibnu axi yabna axiixu loo gis mu wax ko ko mu ne ko wóor na ma kii mooy naamuus Muusaa ba sekkare Muusaa ba ko dikkaloona mooy bi maanaa wax yoo ko dikkal de mu daal di ni nag mu ne yàlloonte ma fekke sa mbir laytani xaadiran id yoxrijuka qawmuka bala sa mbokk yi nar a génne makka maa ko bëggoon a fekke kon ma jàppale la mu ne ko awa muxrijiyahum mu ne ko munu la ñàkk li nga andi ku ko andil ay bokkam danañu ko jàmbu danañu ko mu ne nag فيا ليتي إذا ما كان ذاكم ولجت وكنت أولهم ولوجا فيا ليتي يلونت من نيخون من إذا ما كان بو أمي ذاكم سي لولو ملين وخ تمويني دنغا مسا فين دال نينا كون ولجت ما دوغ سي سدينا وكنت أولهم ما دون كتشا جكا دب فيا ليتي فوف لا يدغ ليتني أما القرآن مم لم يرد إلا بالاقتران لأنه الأفصح الأكثر laytani dong nga dikk ci alquran loolu tegtale ni layti fa naadir la te siiwul fasaaxawul waa ki safaanal atte boobu nu wax te mooy iqtiraanul aamili bi nuun ak adamul iqtiraan safaana loolu nu ci wax ci layta xaala kawnihi maa laalla bu dee laalla moom iqtiraan bi qalil laa yakaadu yusmacu wa qad sumica walam yarid fi lqur'ani illa maa tajarrud laalliya dong ngay gis ci alquran walakin sumia naadiran iqtiraanuhu bi nuuni lwiqaayati fi baytin aywa rajulun bazulun kaana kaanat imraatuhu taluumuhu ala albadli waa ju tabe di joxe jabar ja di ko yedd astahfirullah wala jigéen di ko yedd boom daal mu naan ko arini jawaadan maata hazlan laallani ara ma tarayna aw baxiilan muxallada nee ñu nag jabarama woon di ko yedd ci joxe gi loolooy faral a am nag ndax jabar mooy gën a yedd jëkkër ji ci joxe alal ji ari nii wan ma yow ndaw si jawaadan ku tabe koo xam ne maata dafa dee haslan ngir yooyaay waay waay la àlla nii ndax xëy na man bu boobaa ara ma tarayna ma gis li nga gis man loolu mosuma ko gis koo xam ne tabe rekk ko rey ah su fekkee wan ma ko aw baxiilan wala wan ma ku nay muxalladan ku ñu béeral ku dul deemu ko ndax nay ga ba tax nu war a tànn melow nay yooyu dara amu ci ah la àlla nii daal dégg nañu ko foofu waaye kon la àlla daal moom tajarrud moo ca bare wakun nekkal nag muxayyaran fil baaqiyaati axawaati layta nekkal muxayyaran di ku ñu tànn loolu la neex ci booleeg nuun wala dindi nuun fil baaqiyaati ci yi des yi nga xam ne ñooy axawaati inna mooy axawaati laala mooy inna ak ànn ak ka ànn inna ak ànn ak ka ànn ak laakin yant yooyu ñooy axawaati layta kon laala bu yooyu moom loo bu la neexee lu ci ne am na inni inna ni yëppay am anni anna nii yëppay am laakin nii laakin na nii ak ka an nii ka an na nii wa waxafafa woyofal na min nii min nii ak an nii woyofal na ko baadu man ñenn ci ña nga xam ne salafa jikk nañu woyofal nañu ko ci seen way ittiraaran ngi lu loolu way au lieu ñu ni min nii andi nuunu min teg ca nuunu wiqaaya li daxaam ko ca nga ni min nii door a andi ñu xasaf genn nuun nga bàyyi fi genn ni min yi rek min yi loolu dégg nañu ko ci woyu arab yi jëkk ya ittiraaran loru way ayuha saailu an anni ayuha saailu anhum wa ani lastu min qaysin wala qaysu mini mini yow mi may laaj ma ci bani qays di leen laaj di ma laaj man bokkuma ci ñoom ñoom bokkuma dafay jéem a saboté bani qays nag la ayuha saailu anhum wa ani lastu min qaysin wala qaysu mini mini dégg nga wa fii ladunni laduni qalla wa fii qadni wa qatni alxadfu aydan qad yafi wa qalla néew na laduni ci taxfiif mooy baatu ñaareel bi fii ladunni ki nga xam ni moom moo bare moo siiw min ladunka min ladunni ladun daal bu ci nuunu wiqaaya jokkoo bu ci yaw mutakallim jokkoo li bare ñu def ci nuunu wiqaaya ni ladunni min ladunni waaw min ladunni usra min ladun waaye nag am nañu ko xasaf min ladunni rek maanaam di wax laduni laduni noonu ladun ñu bañ caa def noonu wiqaaya daal di indi yaaw mutakallim laduni waaye nag loolu qalil la wa qalla laduni fii ladunni wa wal xasfu xasaf noonu wiqaaya qad ya fii dana dikk aydan ba tey léeg-léeg naadiran fii qadni ak qatni yooyu yaar bi maanaa xasbu la ñu yor xanaa doy na ma qadni nag moo ëpp doy na ma niki qadniya min nasril qubaybayni qadi waaye gis nga qadi itam xasaf ga yaar yëpp dikk na ci bayt wi dégg nga waaye iqtiraan gi moo ëpp qadniya doy na ma dégg nga qadniya min nas nasril qubaybayni qadi ah xatt yi xatt ne doy na ma moom it dégg nañu xatt yi dégg nañ ko riwaaye nañu leen ci xadis bi ñu tudde xadisu naari ba nga xamee ni sunu borom tabaraka wa taala nee na dégg nga yawma yaqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid bis ba ma naan jamono xëpp ko ñu yàllay bugal ba ba mujj ñu ni ko ndax safara fees nga waay mu naan mu naan dégg nga doy na doy na doy na doy na ma doy na ma doy na xat nii xat nii xat nii riwaaya nañu ko noonu xat nii xat nii xat nii riwaaya nañu ko ci xadis bi ni laa tazaalu naaru taquulu hal min mazid hal min mazid hal min mazid xataa yadaa aljaba jabbaaru alayha qadama fa taquulu qati qati riwaaya xat nii xat nii riwaaya xat nii xat nii wala qadi qadi kon xadis boobu lañ tuddee xadisu naar nee na safara danaan bu ko yàlla nee ndax fees nga mu naa ndax dama bëgg naa kay lu ñu ma doolee ndax amul ndoolant nee na di ko wax ba mujj yàlla ci yërmandeem nee na mu jël xadamam xadamu yàlla kooku min mu min mutashabihaati kalaami rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bu ñu ko jéem a taawil dara nan gëm rek loolu yeneen wax ni moo am nee na yàlla teg xadamam ca kaw safara mu naan na xatt nii xatt nii xatt nii xaddi bu ni fees na doy na ma doy na ma doy na ma doy na ma am na ñu koy taawil naan naan xadam boobu xalqun yaxluquha allahu mbindeef mu yàlla bind xëpp ca ba safara fees waaw nan daal nan gëm li yonent wax ni dana am sallallahu alayhi wa sallam du ñu jéem a xam-xam lu maanaaya yëpp lu mel yu mel noonu taawi la ci ah alam nag lan lay doon ismun yuayyinul musamma mutlaqa alamuhu alam lisim ju mën a ràññee borom tur wa taayinan mutlaqan du ko tënk ci ak teewam wuteeg ismu ishaara bala koo ràññee dafa teew du ko tënk ci taqaddumu zikri wuteeg damir bala laa huwa bala ngaa xam kana dafa fekkoon ñu tudd ko ba yeggal ni zeyd def na nangam wa huwa nangam a nga door a xam ni huwa mooy zeyd daf taqaddumu zikri moo la ko may dégg nga wala leneen ci muarrifaat yi taarifa lim dara duñu ko ca tënk boo nee zaydun rek xam nañu borom moo xam teew na moo xam teewul kon yemul ak ismul ishaara moo xam tuddoon nañu ko moo xam tudduñu ko kon yorul ak damir dégg nga niroowul ak muhalla bi ak loo xam ne bala ñu koo xam ni ki ar rajul bi nga xam ni ah bala doon kii dañ ko du dëgg yooyu benn du ci alam maarifa la ñu waaye du ñu alam waaye bi nga xam ne boo tuddee tur wa rek teew naam teewul lu mu doon ñu xam ko kooku mooy alamam ni ki nga ni muhammadun def na nangam wala saydu def na nangam dégg nga ni waxuma moo xam alamu góor la ni ki jaafar ibnu abi talib zaydun fulaanun muy góor wala muy alamu jigéen ni ki xirniq jigéen la ci arab moo di uxtu tarafatu bnul abdu jigéenu tarafatu bnul abdu waykat bu mooy xirniq dégg nga wala sax alamu ak giir la ni ki quraychin ak qaranin dégg nga adam giir la goo xam ne ca la ñuy tunsabu ilay yunsabu ilayha uwaysul qaraniyu radiallahu anhu nee na ku siiw kooku uwaysul qarani xam naa nitu yàlla ku baax la woon gën a ku gën a dëddu ci waa jamonom xataa nee nañu yonent ba alayhi salaatu wasalaam batale yóbbante na ko saxaaba yi na yow su ngeen demee foofu nayul leen ma uways kooku doy na saraf xaran la xaran kon giir la yow ni ki yow mu ne Quraysh wala sax muy alamu ab dëkk ni ki adan ci yaman wala alamu aw fas ni ki laaxiq kuuyu fas la wala gëleem ni ki shadqam kuuyu bu nuumaan moo moomoon kuuyu gëleem boobu wala ab gàtt la ni ki xaylatu li baadi nisaa'il arab kenn ci jigéeni arab amoon na gàtt bu ñu xayla mu doon turu alamam wala muy alamu ab xaj ni ki waashiq naabiqatu subyaan nee na lamma raa waashiqun iqaasa saaxibihi wala sabila ila aqlin wala qawadi kada wa kada qaalat lahu nafs alam kon lu mu mën a doon ismun yu ayinul ndax yii loo ci wax ñu xam ku mu boo nee xaran ñu xam ni giir googoo soo nee adan ñu xam ni dëkk boobaa soo nee xëy la ñu xam ni gàtt boobaa ni nga xamee ni boo nee zayd ñu xam ni waa joojoo alam nag dana dana doon lisim ju beru noonu dana doon kunya kunya nag mooy bépp murakkab boo xam ne awwaluhu abun aw umun aw aw ibnun ñu naan ibnu fulaan ni ki ibnu abbas wala abu fulaan dégg nga kooku kunya la ñu koy tudde wala laqab ma ashara bi rifatil musamma aw daati tur woo xam ne dañ cee xame ni kooku day ku kawe la wala kooku day ku tekkiwut da ku yembaral tur bu xamee buñ ca xamee melow borom te du si fa du dara xanaa tur wa rek kooku laqab la dikk na di kon yetta loolu lépp mën na doon alam abu fulaan abu abu ibnu abbas ak abu fulaan ak ummu fulaan it ñooyam kat wa kon alam dana doon lisim ni ki zaydun dana doon kunya ni ki abu fulaan ak ibnu fulaan dana doon laqab ni ki lu mel ni zeynul abidin ndegam xam tur la wu xamle sharafu borom mën na doon wu xam saboot xamle saboote ni ki anfu naaqati tur woo xam ne day xamee tagg ci borom wala muy xamle saboote ci borom loolu mooy laqabam lu ci ne mu ni nag yooyu suñu àndandoo nee na wa axiran mu jël za bii nu wax te mooy laqab na nga ko mujj a tudd in si in saxiba su àndeeg si waahu kudul moom ah